cochon chez le vétérinaire. mbokk yi yéen a ngi ci box numéro 105 106 bergerie Mourchid ñoo fekk fi ki nga xamante ne moom mooy Maguette def exposition bu extraordinaire Maguette ngi lay nuyu di la bu baax. waaw ñu ngi leen di fay leen bëggee di am contentement bu baax a baax ci fekk si bi ngeen ñu fekk si fii ci Rufisque. Mhm. Euh, salon Adel. Mhm. di huitième édition. Mhm. à Rufisque. Euh, terrain Ndefane quoi. ñu am contentement bu baax ah, ñu gën laa kontaan bi ñu ñëwee fekk vraiment yow nga bokk ci exposant yi def fi vraiment eh, exposition bu rafet. Mm-hmm. ñu ay maal ak i femelle. Maguette maal bi mooy kan. waaw maal bi mooy kalpe. Mm-hmm. Euh, nekk jeune maal. aussi am âge treize mois. ok macha allah euh, nekk euh, sët si Jalaal. Mhm. yaa ji nekk euh, doomu macha allah bu surtout macha allah bu Papi Dieye quoi. macha allah mu mel ni dafa laal ci monstre boo dee xool. waaw laal na si monstre si côté yaayam quoi. dafa ndróog Al voilà vraiment macha allah mu nekk jeune mâle bu rafet. Mhm. ànd ak ay tëng. waaw aywa ñii ñooy ñan. añeel ñii ay añeel lañu. añeel bi mooy suukaru koor. suukaru koor. waaw moom mu ngi toll ci aasam neuf mois quoi. macha allah macha allah. keneen ki ci des. aussi mhm. euh, suukaru koor kan moo ko jur. waaw suukaru koor beneen maal ba li ngay gis ci beneen box bi. mooy ndongo mooy ndongo daara. ok moom moo ko jur. Mhm. Euh, beneen bi si topp tamit aussi añeel bi toll ci 6 mois aussi. Mhm. ndongo daara moo ko jur. doomu ndongo daara la doomu ndongo ah, allah ndongo daara mel na ni mën na doom ah. ah vraiment macha allah day jur ay doom yu rafet aussi. macha allah euh, ñaari añeel yi si des nekk ay jumelles. aussi ñoom. maal bi ma leen woon léegi muy kalpe waaw euh, sëram moo ko jur ok ak sama benn collègue boo xam ne daf ma si mayoon croisement ma juddule si ñaar yi dama jël sëru maal bi yóbbu ko ci benn sëtu boltu waaw sëtu boltu Cheikh Diop bi si la si mhm. ñaar yooyu juddu quoi ok macha allah macha allah mu nekk ay dëng yu rafet ñoom it uh-huh. vraiment yal na yàlla barkeel amiin mu mel ni des na beneen euh, box waaw ok femelle bi mooy njàppaan nekk sët si Jalal. Mhm. yaay ji nekk sëtu macha allah bu Papi Dieye aussi quoi. moom mu nekk sëru kalpe bi ma leen woonoon sànq. Mhm. ñoom ñaar ñoo bokk papa quoi mais ñoo bokk yaay ñoom ñaar. ok macha ñoo bokk ndey ak baay ñoom ñaar. ñoo bokk ndey ak baay. ok mu nekk lu am solo am na beneen femelle bu mu deen dal kooku mooy kan. waaw femelle bi si topp aussi tamit euh, mu nekk sët ci màggal. màggal màggal bu góor a joxaane bu Rufisque quoi. ok waaw foofu la bokk. ba tey am na beneen femelle. am na beneen fem beneen femelle bi aussi tamit moom it sëtu jalaal la aussi. quoi sëtu la waaw ñoom ñëpp comme ñëw yaa leen juddulu. ñoom ñëpp seeni i maam sax man maa leen juddulu. macha allah waaye nag dafa mel ni euh, borom doom yi rafet yaa ngi noonu. ndongo daara ndongo daara waaw aywa ndongo daara mooy kan waaw ndongo daara moom doom la ci Omar Omar Omar nekk doom ci Mahfous Mahfous ok Mahfous ku ne xam na ne Abdou Fall moo ko jur donc foofu la bokk yaay ji aussi tamit mhm. nekk set ci macha allah bu Papi mhm. euh, ak Mostur ak Mostur waaw foofu la bokk moom aussi ok mu nekk lu am solo mhm. bergerie euh, Mourchid képp koo xamante ne doon nga fa ñëw euh, nan ngay def waaw bergerie Mourchid ku fay ñëw dangay ñëw Rufisque Arafat 3 Euh, pharmacie Rasoul foofu la bergerie bi nekk. numéro de téléphone. numéro téléphone bi mooy 77 537 43 47 nga def 60 76 905 31 35. aywa jërëjëf Maguette Ladoum TV mi ngi lay jaajëfal. waaw. merci beaucoup ok ñu ngi kontaan bu baax a baax si yéen aussi. ak dalal bi ñu dalal fii. Mhm. kontaan nañ ci bu baax a baax macha allah. merci beaucoup jërëjëf. Ladoum TV mooy télé bi bégal sama askan Ladoum